bokk na ci asaka mooy boroom moom alal ji waaw dafa bokk ci sart yi mooy nit ki ci boppam moom alal ji wala boog moomeel gu mat moomeel gu mat dafa bokk ci sart yi loolu moo tax ñu ne nag ki nga xam ne alal jumeel nii dafa nekk ci loxoom moom laa yemlikoo alal joo xam xam ne bu boroom ñëwee mu delloo ko wala alal joo xam ne gisul boroom mi ngi koy wër yu ni demee wala alal juñ sàcc loolu lépp amut moomeel gu mat moo tax ñu ne anna zakata tamliikun wa xayrul maalik laa yakunu minhu tamliik gis ga asaka luñ moom la lu ñuy moomalee la tam asaka lu ñuy moomale la nit asaka dañ koy jël moomale ko nit léegi nag ki nekkut maalik laa yakunu minhu tamliik du mën a moomale da ngay moom ba pare mën a moomale mbokk yi xëy na foofu laay tënkee ci dars bi tey dugg ci wàllu ndénkaane yi incha allahu taala mbokk yi suñu dénkaanem tey mi ngi jëm ci yëngu-yëngu yi nga xam ne mi ngi fi war a am te mooy yi nga xam ne mi ngi jëm ci wàllu législatif yi muy wàllu député yi mbokk yi nañu bokk ñun ñëpp ànd gëm yàlla te xam ne nguur yàlla moo koy joxe waaye tam képp koo xam ne téye nga ko tam responsabilité la sa kanam borom subhanahu wa taala mbokk yi bu ñu demee ba Sénégal gii ñeen fukki lis ak benn loolu jikko fekkewu ko te dëkk yi ñu gën a développé du ko mat loolu ñàkk jikko la rek ndax li tax ñàkk jikko mooy bëriwaane ku koy laaj koo xam ne moom munu ko moom na dem assemblée rek di wax di mbalalali xamul dara ci texte yu fa nekk waaw am ñoo xamee nag ñoom dañ leen dénkoon dañ leen dénkoon bu yàggul ñu jël ko seeni loxo mu mel ni ñii doxalaguñ lu tax ñuy wax ñi ngi doxal te am nañ yaakaar parce que comme mi ngi tegoogun ci dëgg am nañ ci yaakaar am nañ tam benn référence bu ñu mën a sukkandiku pour développer réew mi ña yoroon nag lu mat ay at ne léegi nañ leen delloo loolu war yanul maanaam benn xaaj la am beneen xaaj boo xamee nag ñoom daa mel ni dañoo yéenewut ñii téye dañu la yéenewut ñoom dañoo yéene wut ñii ñaari xaaj yooyu rek moo ci nekk benn xaaj ñii dañoo yore woon sénégalais yi sanction leen la jaadoon mooy ñu dem toog tuuti rek waaye am beneen xaaj boo xam ne moom dañoo yéene wut ñii ko yor coow li bari lool waaye ñu xam ne daal li ñuy wut nañ ko wut ci dignité ak ci li nga xam ne mooy ngor te it may wax sama mbokki journaliste yi gis nga ñeme yàlla day baaxul wax dëgg yàlla ak li nga xam ne mooy lenn société civile bi. jéng moom bari na Sénégal lool ku ci nekk rek yaa ngay xool fa sa poos di duune waaye ku waxal yàlla te yàlla te xam nga ne violence yi fi am yoon wi euh, ren jii am na ñoo xam ne benn benn groupe képp moo ko doon def mën naa ne mën naa ne ci lu wóor mooy benn groupe la ca des lu leerul la waa benn groupe boobu nga xam ne dafay tëb di attaquer ab groupe ñu xam ko mu def ko benn yoon ñaar ñett loola kay bala ngaa wax tudd dangam da ngay wax ki doon def loola nga ne ko ah diw yaa ngi tooñ buñ toogee nag ba ñañ ko def di fay seen bopp loola kon yaakaar na ne état bi deful la ko war waaye ñi nga xam ne ñoom it dañuy wax te état leen diglu muy société civile ak yenn journalistes yi mag yi nga xam ne am nañ crédibilité wàcc nañ seen yoon waxuma nag yenn journalistes yi nga xam ne ku leen tudd sax la yàlla xam doy na ñooñu moom seeni wax waxuma ko mais des na lu mu bon bon ay quelques journalistes yoo xam ne am nañ crédibilité war nañu yëkkat seen xalima ci yu mel noonu wax ba topp li nga xam ne li ñuy tuumaal journalistes itam da nga koy gëm ne maanaam ñoom dañ leen a tàmma financé am na ko fi taxaw su journaliste bu mag ne am na yëglekaay yoo xam ne dañ leen doon jox juróom fukki million par ke gisaguma ko weddi loola niru na dëgg parce que nguur gi ñoom liñ leen di song ak liñ leen di maanaam mënuñ leen a waxal lu baax nguur gi mënuñ leen a waxal lu baax la ca gën a kii sax mooy président bi li ñu jéem a mais booy naan ko moo baax kii wallaay président bi gëmuñu ko bëgguñu ko lañ ci jublu mooy xàjjale ko ak ki nga xam ne mooy premier ministre ba ca jublu kon nag nit ñi réew mi hypocrite bi bari na naafiq gi bari na ci dëkk bi sénégalais yi ku ne xam na mbooloo mi fa ñu féetee mais journal bu ñu xëyee di bind dangay ngay defee ne ca Cap Vert la ñuy bind wala ca Guinée Bissau ñiy def revue de presse nag fa la naafiq gi ëppee ñooñu moom damaa defee ne am na ñoo xam duñu ay nit waxuma ñëpp de mais li ëpp ci ñoom ci télé yu mag ak rajo yi naafiq yu mat sëkk lañ loolu man maa ko wax ñiy def revue de presse nga xamee dañ leen di fay wala lañ leen daan ceebal moom lañ gisatul moo tax waaye dañuy gis lu ne fàng ne dàng ñu teggi ko bu ñu jëlee journal bi sax dañuy xool la nga xam ne moo war a naqari état ñu wax ko lépp luy neex opposant ñu wax ko lu baax état ñu dégg ko loolu nag wax dëgg yàlla ak naa feq la koo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy dund di ko gis ñu ngi koy dund di ko gis yàlla na yàlla musal ci réew moo xam ne dafa bëri ñoo xam ne hypocrite ak naa feq moo fa am wala nit ñoo xam ne dundee alali ger moom lañ bëgg te daanaka mooy liñ doon wax fii dafa bari yàlla ñu ci yàlla musal kon mbokk yi ni àndaat gëm yàlla xam ne ñii ñu ngi leen di door di jox nañ leen muñal ñu dem benn mandat Sénégal yëpp bu boobaar nañ àtte waaye ñu yor ko nga ne doo ko fi yoree ba noppi nag ak yeneen comportement yi mel lu la neex di yor ak xoolal ngànnaay yi nga xam ne moom lañ jàppee ci kaar bi bi bi bi nga xam ne moom la waa waa waa dig bip xool loolu mbokk yi luy ñaaw la te niñ ko war a dénoncer des na. violence rek la ñuy wax mais ngànnaay yooyu ñun dañu leen a war a topp jaar leen ci yoon ña yoroon ngànnaay ak ña leen commandé ñëpp ñu def leen ci kaso bi loolu mooy dëgg yàlla nañu yàlla saxal ci dëgg jooju ñu sax ci ku nekk ci dëgg ñu ànd ak yow ku nekkut dëgg du ñu bala fale mbokk yi ñoo ngi wàcc foofu kàddu yi di jégglu bu fekkee am na lu ci dëng dañoo amoon yéene rek wax dëgg ak rafetal wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ali sahbi ajmain alhamdulillahi rabbil